di wax ni l'entreprise de destruction de d'un mouvement aussi important que Y'en a marre dans ce pays a déjà échoué parce que lii de dañ ciy ut lenn te yenn question yi fi jib si na ko mooy nu ñuy def ba bu ñu mënul détruire mouvement bi par la voie judiciaire nañ ko détruire moralement ba ku taxawati ci mouvement bi ci télé di wax sénégalais bu ñu waaye ça ne passe pas ça ne passera parce que it su doon sax li ñu tuumal ñaari membre ci Y am na def ba fii ñu toll ni kenn fii mënul wax ni am na kenn mënu ko wax man ma gëm ni amul te dinaa wax lu tax waaye bu doon am na sax la ñuy def ñun en tant que individu suñuy acte mënuñu ne loolu ndigal la bu ñu jël bu jëlee ci Y'en a ci groupe bi kon bugg a coûte que def la link day dugg ci li ñuy wax mauvaise foi ci tubaab waaye nag ci diine sax dañoo jàngal ni sa mbokk da koy taxawu bu tooñee buñ ko tooñee donte tooñ na sax da koy taxawu mooy il faut nga apporter ko solidarité farata la ci Y en mu apporter solidarité rawatina nag bu dee tey kenn mënul firnde ndeel ni li ñuy toppee nit ñi loolu am na moo tax Y en taxaw su dee nag ñun ñu dul membre Y en a sax ñu ngi taxaw rawatina Y en a marre c'est une obligation c'est un devoir kon amalgame boom boobu ñuy essayer dugal ci bopp nit ñi ba suba Alioune Sane bu ñu ko invité ñu ne ak ah ñoom de nii Euh, Fou Malade demee télé ñu ne ñoom de nii loolu ça ne passe pas mouvement dafa am ligne am ay principe yu tax muy xeex tant que ligne yu ligne boobu ak principe boobu mouvement bi dans sa globalité dériwu ci la lu mun topp kenn wala keneen ci mouvement bi mënuñu ko jël teg ko ci ndodd mouvement bi yëpp jàpp ni tey la Y'en a marre war a gën a am doole ak taxawaay ci réew mi parce que nag lu yëngu rek lu ko yëngala kopp doole buñ demee ba sigle yanama dafa fekk taxawaayam am na ñu mu géré ci réew mi parce que ku soxalul kenn kenn du la pexeel ñaareel bi muy damay wax rek ci li tax ñu teew fii mois de février mars soriwul gën saa gudd juróomi weer la te du coow li jibi bokkoon ci njëkk a ñëw taxaw ñëw sama kër seet si ma la te délégation boobu Simon ngi ci woon fu Fou Malade ngi ci woon Aliou Sané ngi ci woon Thiata ngi ci woon euh, kilifaa ngi ci woon ñëw taxaw ne ma nag suñu yoon newul ci politique nous ne sommes pas des acteurs ci cadre politique wala électoralement waaye suñuy principe ak lii suñuy taxawaay mooy fépp fu ñu bëgg a faagagalee démocratie fépp fu ñu bëgg a jaaye nit doole Y'en a marre dina fa taxaw ñu ñëw taxaw taxawaay bu rafet lu jiitu loolu yàgg naa am ay contact ak Y'en a waaye du contact bu poussé parce que fii Sénégal yi dafa am loo xam ne lu xew rek ñu ne non c'est des politiciens déguisés diw moo nekk seen gannaaw gis nga ñun ku bëgg a def politique dëgg du ci yaanaamaar nga koy yaakaare soo duggu ci àll bii dem def un travail politique sur la base d'un discours politique ba su élection suñ ko woon jotee bu ñuy wàññi di nga xam ni eh, amoo dara kon la doon dajale ak yaanaamaar c'était des combats de principe ci suñu ressource naturelle ci euh, prédation foncière bi ak yeneen yeneen yoo xam ne sénégalais bu ne mën na ko bokk ak beneen sénégalais indépendamment de votre forme d'organisation waaye damay jël exemple ci kenn def seede fii muy caat wala muy kilifa gannaaw bi yanamar kilifa musuma koo miin jëmee témoin jusqu'au mois de février defe naa caat mii sax laa gënoon a miin ñuy wootante de temps en temps ana sama livre gi demee noonu mais bi événement yi amee gannaaw bi ñu dajeeg Y'en a marre dafa ñëwaat sama kër ñëw toog ñu waxtaan lu yàgg mun naa ne depuis le 9 février jusqu'au 3 mars amul jour boo xam ne kilifa ñëwul sama kër musul teg la ñaari fan yi mu ñëwul sama kër ñëw toog apporter ma soutien waxtaan ak man Serigne Bassirou Guèye bii di procureur da ko woo ci bureau bi mu ñëwee mu ne ko yéen li tax ngeen di jàppale Sonko que yéen ñëpp di ngeen ci jëlee problème li may wax nii je tiens à le dire parce que nit ñi faut ñu xam link bi yéen ñëpp ngeen ci jëlee problème d'ailleurs Sonko va aller en prison il va pourrir en prison ne ko yor naa nii certificat médical bi kilifa ne ko ñun ñëpp yor nañu certificat médical bi. mu ne ko boobu baaxul mu ne ko boobu nekk ci PV gendarmerie nga ne boobu baaxul yow am nga beneen mu ne ko de toute façon il faut en prison kilifa ne ko bu yóbboo ngeen préparer ñu ay cellule ndax ñoo koy jiitu ci prison bi ci koo xam ne miinante wuñu woon parce que li ngeen bugg a def du dëgg jaay doole la lii kilifa dafa jóge foofu ñëw sama kër ñu toog waxtaan ji waaye li gën a yéeme sëñ Bassirou Gueye daf ko ne dañu toog rek sama soxna andi reer bi ñu teg commencé reer ma présenté ko soxna si mu yëngal boobu ma ne ko lu xew mu ne ma sëñ Bassirou Gueye ngeen jéggal ma ci kàddu gi sëñ Bassirou a fen dëgg dëgg dëgg dëgg ma ne ko ah lu xew ne man daf ma ne Sonko sax d'ailleurs këram tas na jabar ji jël na bagage am ñibbi na loolu ban rapport la am ak travail procureur ba di toppatoo kër jàmbur ndax tas na wala tasu c'est de la méchanceté gratuite et bête ça n'a rien à avec la justice te loolu mooy justice Sénégal yàgg naa wax ni problème mu Sénégal la koy tas dina jóge ci justice te ñeent ci biir justice bi ab procureur la ab doyen des juges la wala un juge d'instruction conseil constitutionnel cour suprême bu eesuwul loolu ñooñu ñooy les bras armés judiciaire et politique de Macky Sall ñun ñëpp ñu koy seetaan ñeenti nit est-ce que war nañoo lëmbee 17 millions de Sénégalais suñ ne lii ngeen war a àttee nga teg ko fële ñu ne la fexeel ba tëj Aliou Sané nga ne tey su ma daroon dem créer sax ay charge dinaa ko créer mais kii il faut mu tëdd kaso avec une méchanceté que rien n'explique et je j'interpelle la justice toute la justice parce que nag soo waxee ñu ne dafa attaquer institution bi institution bi ñun la sénégalais yi c' est le peuple sénégalais c' est pas les 300 magistrats peuple sénégalais non pas au nom de Macky Sall bu dee nag am na ci ñoom ñu baax te ñun xam nañ nit ñi baax moo ëpp waaye ñuy seetaan li ñuy def ci justice dul yoon te kenn ci ñoom du ci àddu il sont quelque part complices balaa may dee ñu naan la justice marche bien c' pas parce qu'il y a quelques mais quelques cas yi dañ koo xeeb li tax yàlla wax ci alxuraan ne ku rey benn dafa mel ni rey nga àdduna yëpp koo tëj ci tëj nga àdduna bi yëpp parce que la liberté est sacré yàlla dafa mooñaale nit ak liberté muy dem di ñëw di la ay problème nga jël nit ci lu dul yoon féetale caabi ci gannaaw ba pare dem lekk sa ceebu jën naan sa ataaya te toog di foog say doom moom dootul gis ay doomam ba pare nga ne loolu dañ ko banaliser ces injustices là mu sa tas dina tas Sénégal suñ ci jógul parce que kenn du ko nangu je réitère ce que j'ai toujours dit le droit à la résistance face à l'oppression su Macky Sall jàppee ni voté ay loi yu ñàkk fayda ci terroriste dem équiper ay gendarmerie mooy problème bi na dem laaj waa Algérie na dañ wax waa Soudan la rek un peuple qui ne qui dit non kenn mënu ko téye ñun nag jàppoon nañ ni les événements de mars dina ko delloo xelam tuuti mais lii wane na ko entreprise systématique de ciblage et de liquidation de gens simplement parce qu'ils ont dit non ce dossier est vide li tax ñu bàyyi escroquerie ki a escroqué qui une affaire privée nit ki déposé wul plainte nga ne escroquerie corruption mais dem leen lire article 159 code penal pour corruption am il faut mu am un agent public boo xam ne dañ ko jox pour que en échange mu def wala mu bañ a def ana agent public bi Après, ils mettent leur, leur, leur connerie de X, excuse-moi du terme, comme dit Barthelme c'est du foutage de gueule. Tu prends, tu mets X. Mais quand nous corrompre dans affaire-là Parce qu'il faut coûte que coûte fabriquer des preuves pour que nous dem tëddi kaso. Mais ñooñu ay borom kër lañu dañoo yor doom yor jabar yoon ay ay activités yow nga leen tëj gënoo leen Macky Sall leen tëj gënu leen te tey su jugee pare dina dem toog ak njabootam et on di dit laissez passer. balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mu ñu jox nguur pour nga améliorer la sort des Sénégalais nga bañ ko utiliser pour di dal ci kaw nit ñi ma daaneel nag ci wax ni nous serons à côté côtés de Y'en dafa am combat yoo xam ne bu jotee bu ñu nangu fumisterie yi waaye c'est politique c'est pas man bi ma ci tollee ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawloon heure bi du ma toog fii di wax dafa am fu mbir di toll man je ne suis pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa musuma wooy Sonko ñancoo la may wooy je suis là parce que dañoo jël justice instrumentaliser ko une fois de plus pour liquider des gens yoo xam ne su ma leen xamuloon sax war naa wax ma laa nag bu dee ñu ma xam la et vous aurez tout notre soutien nous mènerons ce combat ensemble su laajee la rue dinañ dem dans la rue judiciairement ñu ngi ciy xeex boobu léegi loolu laa bëggoon daanelee di masawu mm, yaadamaat di masawu famille kilifa ay waajuram ay mbokkam soxnaam ay doomam ñëpp ñu ngi leen di masawu ne leen nag ils nous auront ils nous auront tous à côté de nous di masawu kilifa euh, Simon ak waa mbokkam yëpp barki dem rek jokkoon ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di masawu di leen ne ce combat on le portera ensemble incha allah Parce que ce que Macky Sall veut faire de ce pays, ça ne passera pas. Et je termine par lancer encore un appel à la jeunesse de ce pays. C'est votre avenir qu'on veut compromettre parce que l'IREP, ça participe à un plan politique de confiscation du pouvoir par des gens incompétents qui n'ont réussi à rien faire de bon pendant 10 ans et qui vont rester encore 10 ans. Je vous remercie.